mbas mi di covid 19 laal secteur yëpp rawatina nag jaaykat ya fare ca village des arts nekk ca Pointe des Almadies ñoom nag ñi xam le ni lépp rek dafa dal di taxaw ci seen wàllub liggéey gisatuñ benn client muy loo xam ne lii daanaka ñëpp a ko muy covid bi nga wax euh, fii centre artisanal la boo xam ne bii c'est reconnu fu ne la daan nit di jóge ci di ñëwee nii fii ci sunu marché mu ci hôtel yi ci ñuy jógee Gambie wala feneen ak yooyu ak ñoo xam ne ñi dañuy ñëw daan découvrir ci Pointe des yi mais depuis le mois de mars ak événement bi ñun sunu liggéey vraiment doxatul ndax ñun liy doxal sunu liggéey mooy tourisme te fléau tourisme kenn ku ci ne. xam na ni mu demee kenn dematul kenn ñëwatul muy les hôtels les structures hôtelières les artisans ñëpp ñoo xam ne ñi daanika dañoo jokk seen yitte ci mbirum tourisme doxatul seulement nag loo xam ne li xamuloo lu dul moom nga am ci ñeent fukki at ak nangam am ci lépp def ci lu ne métti métti wala circonstance bu mel ni ni mu ñëwee ci jamono yi du Covid du tax nga mën naan dama fiy jóge wala dama koy bàyyi defe leneen ak lu ci mën di am it da nga fay toog ndax suñu borom moom du tëj buntu tëj fenêtre toujours yi àla kuliyaalin am na ñoo xam ne ñi ci ay mission wala ñeneen ñoo xam ne ñi dañu fay ñëw ci ay yeneen yitte wala ñi fi ne ay benn benn ngir suñu borom jaarale ay mbiram ñu jot li nga xamee ne a ah, tolleen na ko ak suñuy soxla si ñu di ko ci saafara waaye na mu war a doxe ci liggéey doxeetu ko muy jàngoro joo xam ni ñëpp la dal fi mu ne nii ba ci yéen ñii di wax ak man fi mu ne nii seen liggéey na moo waroon demee nii demeewul kenn tegu ko kenn nag mbiru suñu boral moo dikk. ni mu la ni mu gàllankoor la ne gàllankoor ko keneen waaye ñun suñu wallu bopp nga xam ne li ñu dund ñoo ko xam mooy boo xooloon ak sa euh, caméra bi xool bërëb bi da ngay gis nit ñi kenn ku ne dafa dafa wut rek fu mu toog te nag tàmbaliwul tey presque mars mars ak léegi ci loolu la ne da ngay xëy suba rek ñëw toog. ndax gisoo ko boo gisul koo jaay doo doo jaay te marché client lay laaj yàlla daf ñoo nattoo woon nag client yi ñu am te dëgg te mu bare mooy étranger yi te fi mu ne ak feebar bi nga xam dafa xewoon frontières yi leen tëj kon mu mel ni kon ñoom ñëwatuñu mu mel ni kon ñooñu bu ñu ñëwatul ñoon suñu liggéey day taxaw loolu nag doon loo xam ni impact boo xam ni dafa dafa ñoo jàpp jàpp goo xam ni mënuñu taxaw ci mbedd di ko wax fenn ndax duñu wër di jàmbat ndax kuñ ko jàmbatit it doo moytu jàngoro yooyu fa lay lay fekk ca ca jàngoro yooyu lay fekk kon duñ ko jàmbat kenn dañu mujj daal nu wakkirlu ci suñu borom tey jéem a fexe yeneen mbir yoo xam ne daal dana mën a doxloo suñu liggéey ci loolu daal la ñu ne boobaak léegi dara doxatul li a di gën ak néew sax mooy ñi nga xam ni ah, ah, étranger yi xam ni ay ñoo xaw a dëkk ci biir dëkk bi ñoom benn benn yooyu ñoo fi ñëw. mu xëy na moo ñu dimbalee waaye liggéey bi daal li nga xam ne moo ko war a doxal te ñi nga xam ne ñoo ñu ko war a ànd di ko doxandolool ñoo ñëwatuñ ci réew mi loolu daal mooy mooy mooy cat. ay aar la ñuy jaay waaye vraiment affaire bi laal nañu ndax gisatuñu clientèle yi kenn ñëwatul gisatuñu kenn dañuy xëy même pas 5 ñu ne waxtu bi jot na ñu wàccaat. ay borom kër lañu dëkk bi metti na affaire yi doxatul gisatuñu benn client wër na seexul xaddim ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla na ko fi yàlla jële ci seex mu Modou Fadda barke borom Touba barke maam Seraay Fall yàlla na yàlla dàq feebar bi mu dem ba ñu ñëpp ñu delluwaat ci activité yi waaye vraiment daal tubaab yi moom manqué nañu dañuy xëy ba ngoon nii la ñuy wàcc presque def na un an gisuñu client te jaboot mënut a toog il faut ngay ñëw boo yoree ay doom yor ay ay xale fay courant bi fay ndox mi lépp tegu ci sa kaw yàlla nañu dimbali daal affaire bi jàll rek ci barke Seexul Xadiim barke suñu fàllu ñuy xamle nag ni ba mbas mi dugg see fii ba léegi gisatuñ benn client rawatina ñii di nasaraan si lépp rek dafa daal di taggatémbe ci seen wàllub liggéey.